Assalamualaikum warahmatullahi yeen mi nga xamne yeen saxo di setan Badru TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen Balu ax te di leen Bal ax tay nak ñu ngi waat fi ni ci Tallinding and see programme bu ñuy Gambia Animal Lovers kon ni ngeen ko xamee rek eh, tay ñu ngi fi ni ci Hadis Farm mi nga xam eh, ne fii daal nekk ci euh fas yéene tey indil leen lan ñu gay amal fi ni ci Tallinding den eh, su ko defee ànd see ki nga xamne mo amé amee bi muy koy ooyee Omar euh da ngeen ma ngi dem ci bi den su ko defé Omar dara ñu ñu ngi ni taxaw ak Omar Dramé mi nga xamné mom moy kiyaté ka bi fii nii si xadis faam euh, su ko defé nga jox ko kàddu yu mom mu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa Badru TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen euh di leen ñaanal jamm te di leen daral fi ci bir séeri kër yaa xadi Talinding so du rafetlu bu baax ñew bu ngeen fi ñew pour def interview lolu ñu ngi leen ci welcome bu baax tey di ci contente bu baax a baax a baax a baax a baax bisimilah. ñu ngi rafetlu kàddu yi bu baax a baax Omar euh, Omar mun nañu xam euh, fii yan façon xara fi nekk. waaw fii de ay laadu moo fi ne dëkk bi nag bëri nañu fi yar xari gàtt yaa ngi fi asawaas yaa ngi fi euh, bali bali yaa ngi fi waaye fii ne wax dëgg moom laadu mi rek fi nekk wax dëgg yàlla. naa ne bu ñu demee ba ci kanam da nga gis ñoom ñëpp bu soob yàlla danañ la tegal ñoom ñëpp tam seen ligne. ba képp koo xam ne yaa ngi si éleveur boo dégloo ligne danga xam fi ñuy bokk kon su baatu laa doon bu ñuy wax donc si nga koy mën a nangu incha allah. Omar euh, yow yaa moom bergerie bi. no sunu uncle moo ko moom ñun moom fi lañ nekk moom mu ngi outside wante ñu ñoo fi nekk wax dëgg ñun ak moom ñooy liggéey moom nekkul fi waaye ñu ñoo fi nekk ñooy doxal lépp. ok seen oncle boobu moom moom moom Belgérie bi soo yéen yéen amee Belgérie bi. Mm. di ko toppatoo bu baax a baax mm. léegi Omar gis nañ si benn xar bu góor bu nekk suñ gannaaw xar bi mooy ban. bii mooy busu xar bi la wax busu mu doon xar bu doy waar parce que fi mu génnee la xar bu ñuy wax banque mondiale moo ko jur. banque mondiale Omar Séeréer a ko jur Omar Séeréer booy Séeréer te képp koo xam ne yaa ngi yëngatu su élevage. tuuti rek da nga xam ne xar yooyu booy séeréer moom euh, def na si élevage lu lu doy waar moo tax bu ñu ne kii sëtu booy séeréer la Omar séeréer banque mondiale euh, da nga xam ne xar bi ñu ngi séntu si moom loo xam ne ni yàlla baax na li ci kanam daal incha allahu rabbi raw raw li bët waaye xar bu doy waar la deret bu dëgër fa la bokk moom busu mii waaw gis nañ ne eh, dereti booy booy séeréer bëri na Gambia anyway ba pare eh, gis nañ xar bi taxawaayam benn la mm. te booy séeréer gis nañ ne moom nekk na xar bi nga xam ne toj na Sénégal mm. te lan ngeen day xaar si xar bii nii loolu laa la bëgg a wax nii xar bi li ñuy xaar si moom dafa bëri ñu bëri sax nekk nii ñu ngi soxla ay doom am na ay doom yu fi jur yu bëri doom bu fi jur du taxawaalu boo demee ba si àll bi fële comme fi ma la wax last fi ma demoon noonu Omar mu ngi yore ay doomam ak yeneen si biir am na ñeneen ñu fi ñëwoon pour tableau xar bu doy waar la xar bi kay incha allah rabbi ngeen dolli ñaar waaye lu ñu séntu si moom rëy na lool parce que xar bi fi ma la wax ne moom la génnee foofu xar du fa génnee ba pare te duñ séntu séntu si booy séeréer Omar séeréer banque mondiale xar mënul génne si ñoom ba pare te séntuñ si yow dara loolu possible ba moo tax xar moom ñu ngi séntu si moom lu doy waar doy waar doy waar te incha allah rabbi danañ si teg suñu bët bu soobee yàlla. léegi na fi doom. waaw am na fi doom fi doomam nekku fi yu nekk fële si àll bi fële Lamine Daranka barki démb rek dinaa fa xool gis naa fa ñaari doom yoo xam ne muy tubarkàlla incha allah yooyu moom xam naa ne bu ngeen leen gisoon da ngeen xam ne xar bi li may wax si moom euh, incha allah rabi mu ngi ah, yooyu ñoo nekk euh, foos doomam wala. waaw yooyu ñoo nekk force doomam benn bu góor la ak benn tënga bu jigéen waaw ñu ngi foofu noonu ci àll bi foofu noonu waaye xar yoo xam ne boo leen gisee daal ah da nga xam ne euh, direct ba séeréer pire ngi nii. waaw ok gis nañ si beneen euh, Belgérie bi beneen euh, place bi yéen a fa amee ay jigéen nañ dem nga woññu euh, yu góor kay nañ dem nga woññu waaw ok Omar gis nañ ne bi tamit beneen xar la si femme bi mun nga wax bi bii mooy ban waaw right now bi moom moom lañ fi sampagum moo fi nekk si gaay yëpp ñu koy wax Central Park waaw moom doom la si maxu sëy moo ko jur maxu sëy xar bu ñuy wax magistrat moo ko jur magistrat magistrat nekk Sénégal. waaw magistrat xar bu ñuy wax seex jóob moo ko jur. boobu itam mu ngi Sénégal Cheikh Diop xar bu ñuy wax Murit moo ko jur kon nga xam ne xar bi dëgg-dëgg du ay caaxaan. parce ñu ko meññ ay borom doole lañ tey ñu ko meññ def nañ ci élevage lu am doole loo xam ne nii ñëpp a ci teg seen bët ba moo tax tam kon ñu xam ne xar bi moom dëgg dëgg séntu nañ ci moom tam moom mbir dëgg tey mu ngi koy wane. parce que ay doom wax dëgg-dëgg boo si gisal nga xam ne mbi xar bi moom fi mu bokk moom tubarkàlla waaw nga dem boo demee si wàllu yaayam tam xar bu ñuy wax ayda ay ayda mbooj moo ko jur ayda mbooj euh, mati dramé moo ko jur waaw mati dramé moom itam xar bu ñuy wax euh, pecos benn maal bu ñuy wax pecos moo jur mati dramé soo ayda mbooj mi nga xam ne moo jur kii xar bu ñuy wax cant bu góor moo ko jur xar bi direct mooy itam tubaarkàlla dafa bokk si yax bu dëgëra dëgëra dëgëra dëgër lii mais bi yow sax man nga koy bañ a bañ a euh, desa understand waaye ñi nga xam ne ñu ngi yëngu si élevage ñoom bu ñu dégloo danañ xam xar bi kon ñi may wax ñi may wax noonu yan xar lañ ak xar yooyu lu ñu def si élevage ba moo tax daal ñu xam ne xar moom dëgg-dëgg mooy itam euh, am nañ si moom yaakaar bu baax a baax te loolu ñu ngi koy gis xanaa di dolli yan na yàlla gën dolli si barke yonent bi waaye daal moom wax dëgg yàlla moom macha allah. gis nañ ne ci euh, deret bu mbokk euh, foor na te am na solo trop magistrat ku ko wax kenn réeroo mbir magistrat lan la def Sénégal. léegi gis nañ ne euh, fu mu nekk nii yéen a ngi amee ñaari façon ñi xarf yi. benn bi di Siti Boy Séeréer bi tamit di Siti magistrat. ndaxa ngeen collab naka ngeen amee collaboration boobu ba mun a am maal yu mel nii. waa xam nga rek liggéey bi moom boo si nekkee dëgg-dëgg fépp foo xam ne dégg na ni lu baax fa rek da ngay jéem a def sa level bés pour am ci loola. so moo tax ñun yàlla xaw ñu suturaal tuuti bañ déggee loola ñu fexe ba am si sëtu banque mondiale sori doomi doomi banque banque mondiale si wàllu booy séeréer gi ñu am si si wàllu magistrat gi tam ñu am si. loolu moom sant yàlla bu baax a baax parce que liggéey bi moo dem moo laaj loolu nekku ne da ngay tëb dam xool fu la fu la neex neex jënd da ngay xool ci place yi nga xam ne seen deret def na ci élevage loo xam ne ni tubaarkàlla te doom bu ñu wàccee nga bég si loola. képp ko a ñaareel da ngay dem xool si yooyu ngoo ci loolu moo tax bu ñëwee pour jënd ñu dem xool si yooyu noonu ut ci léegi euh, bii nii nga xam ne mooy. Euh, Central Park gis nañ ne Central Park moom xar bi moom kenn du réeré ay mbiram léegi Central Park moom euh, bi ngeen koo am mbaa nekkul lu jafe. non jafe loolu xam nga rek mbir yi moom. li wax rek comme que élevage moom ñun ñëpp si bokk nekk dañuy jàppalante rek boo gisee sa mbokk moo xam ne ñëw na pour bu gisee liggéey moom itam ngeen jàppalante ba seet moom itam naka lay mën a def ba gis si boppam pour lii ñun ñëpp rek ñu mën see avance jëm si kanam loolu kese la waaye lu ñu ko amee moom dëgg-dëgg euh, bu baax a baax a baax. dégg dafa mel kon da ay ay collaboration in ne waaw euh, ko amee. waaw parce que ay association yu mag lañ yu Sénégal dal yu fa nek yu mag lañ fi tam yu fi nek yu mag lañ so bo bëggee da nga communauté ak gaay xol fa nga xamné fa la ki nek nga dem wax ak ñoom ñu la ni ak ni ak ni demal place nangam place nangam ñu am nangam ngay gëstu ba gis yi nga bëgg jënd yu andi sa gëtt nga liggé non la liggé bi da démé waaw. mom Central Park mom amna fi dom amna fi dom wa so so xolé bi ni mom itam dom la ci Central Park waaw mo tax nga xamné xar bi du ay fo du ay tiaxan so xolé dom bi rek deug deug li nga xamné ne mu ngi tollu ci 5 mon bay dugg ci 6 mon kon nga xam ne xar bi dëgg-dëgg moom itam euh, ndaanaan la doom li central park doom yaa ngi fële waaye bii moom mooy sën nga xam ne moom mu ngi mu ngi mu ngi si biir gi fii am na yu nekk outside nag wante si biir gétt gi fii bii moo fi doomam bi nga xam ne moom sën sën sën maal la fi am na yeneen yu fi nekk na ay tëng ak yeneen lifin waaye bii moom mooy doomam bi nga xam ne moom sën maal la fi soo boo xoolee yeneen doom yi da xam ne central park dëgg-dëgg euh, li ma la wax si moom rek fi mu bokk la moo tax xar bi mu wàccee rek danga xam ne xar bi fi mu jiyoo ko euh, dëgg-dëgg duur fu ndaw xanaa bii mooy taawam non bi bii nekku tawam bii du tawam am na fi yeneen yi même bii sax am na fi mag am na amaat fi beneen mag te yooyu yëpp Central Park mu nekk seen papa. waa gis nañ ne euh, always da ma day wax ni kon génne nañ leen rangal mi ci génne nañ leen ndax da nga leen yóbbu euh, ñu tëbu euh, yeneen xar yi wala dañ leen jaay. bëgg nañoo xam nga leeral ñu. waaw dëgg la yeneen yi dañ leen able suñu yenn gars yoo xam ne ñoom dañ leen liggéey si élevage bi yeneen ñi nag dañ leen jaay suñu yeneen gars yi parce que na xar yi moom fii gars yi bépp xar bu baax buñ gis nga bokk si deret bu baax soo wàccee doom la ñoom ñëpp kenn ku ne dafay def level besam pour mën am si doom boobu moo tax itam am na yu bëri yoo xam ne dañ leen jaay am na yoo xam ne ko abal suñu yenn gars yi mais am na yeneen bekk yoo xam ne ñu ngi si yeneen dañ ko abal ñoo xam ne dañ leen abal ngir ñu liggéey si tuuti ñoom itam so loolu na moo tax nag mu ngi noonu daal gis nañ fi beneen maal euh, bëggoon nañoo xam maal bi moom mooy mooy ban waaw bii itam su beneen seen maal la ñu naan ko euh, petit baro moom itam mu doon maal boo xam ne dëgg dëgg maal bu ñu am yaakaar la because mu nekk nii mu ngi toll si eh, five months bay dugg six yaayam yaayam moo doog jëla jëlaat ni ëmb amu amagu rakk nii waaw ah, xar bii amagu rakk yaayam moo nekk nii xale booy bi téye nii mu doon xar boo xam ne moo dëgg dëgg dafa xaw a luus fomm dafa xaw na taw temps gan waa an next uh, balaa next month ci kanam boo fi jaaraatee di nga xam ne xar bi moom itam dëgg dëgg xar bu doy waar la waaw dafa dafa dafa mel ni xar yi daal ñoo nekka future of the Belgerie. waaw eh, yéen moom ngeen am yaakaar ne eh, jeune Mali yi nga xam ne moom ngeen bugg a liggéeyee daal. Mm. Eh, mun na ñëw at ci kanam. Mm. léegi gis nañ yeneen xar tamit yu jigéen. xam nga ñu ngi woon fële si seen Mali. waa bii moom tëng la moom itam si doomi central park yi la bokk. bii moom boo ko xoolee nga xam ne femelle boo xam ne dëgg dëgg femelle bu ñuy bàyyi xel te bu ñu am si moom yaakaar la moom la ñuy wax awa jàng di doom si central park bu jigéen. moo itam deug dëgg boo xoolee léppam nga xam deug deug xar bu ñuy bàyyi xel te xar buñu ñu ama ama am am yaxara amna yeneen yu fi nek yu ndaw. ci mu ci wan mon an 15 days mbote bi ñu koy ah, na xarit jaane mom lañ moom lañ tuddee yaay yaay yaay yaay señ bi so mom mu ci wan mon an 15 days kon nga xam deug deug dëgg Central Park dal limul ma la wax si moom ah, di nga ko gis nànk-nànk inshallah parce que lim fi gis yep yu yu yu doy war la. ak tam beneen gis nga ko nii waaw kon nga xam ne Santrafara dëgg dëgg du ay fo du ay caaxaan màll boo xam ne dëgg dëgg moom mu ngay liggéey bu baax a baax a baax because because because fu mu fu mu génnee dëgg dëgg xar néew na xar génnee fa tey te te joxewuloo benn résultat bu correct waaw xar bu fa génnee dëgg dëgg da nga wane loo xam ne daal da xam ne yee léegi dafa mel ni seen euh, fii moom Central Park doomam yi rek a fi nekk at this moment. waaw waaw waaw naaw na Central Park moom doom yi rek a fi nekk busu nag am na fi doom. waaye doomam yi nekkuñ si biir séeréer bi am na doom yoo xam ne juddoon nañ fi waaye nekkuñ fii dañu génnee ñu ngi si yeneen gaay waaw waaye comme doom yi fi nekk mu dëgg de Central Park mu fa am xam ne nii ñu ngi si biir biir séeréer am na yeneen doom yu nekk outside nag waaye ñii moom ay doom la ñoom itam yaa bëggoon nañoo xam léegi ndax Talla yaayam ma ngi fi waaw Talla Badiane Talla Badiane yaayam ma ngi bii la ñuy wax Jama Ndiaye moom mooy yaayu Talla Badiane moom lañ boole ak Central Park mu yëg ko am si Talla Badiane mële kon nga xam ne moom dëgg-dëgg boo xoolee femelle bi rek nga xamne ne moom itam dëgg dëgg yoon la pour mu wara a lu melni talaba yaan kon nga xamne la centre Central Park daal moom mu ngi non da dega dega liggéeyam ñun ñu ngi koy gis wax dëgg yalla ya legi gis nañ eh, ben ñaar yu black and white nañu xam yoy ñoy yan waaw yi itam si gétt gi lañ bok mu don femelle yo xam bi lañ wax wéeri wéeri moo itam mu don xar bo xam bi fi wacc ci yagul lool way wax deug eh, am fi lu am solo because bo lo tëng bi ni xolal xar bi mu fi bi nga non xol legi ba mooy wiir wiir moo fi wàccee tëng bi nga xam ne mooy Awa Diang moom bi fi ñëwee ak léegi yàggul waaye dëgg wàccee na fi tëng bu am solo temps yële si gannaaw am na bu amoon sax waaye boobu yàlla dafa dogal mu daanu waaye bii li fi boo xam ne moom dëgg dëgg moom mu ngi doxagum mu doon femelle bu am solo wax dëgg yàlla. ndax moom bii awa bii mooy doon eh, taawam. waaw moom mooy taawam bu mu njëkk a wàcce si gétt bi fii bii la am na bu mu fi amoon temps yële si gannaaw waaye boobu dafa dafa daanu waaye bii daal mooy tëng mi nga xam ne moom moom la fi amaale bu nga xam ne moom mu ngi dox yaa bii nii. bëggoon nañoo xam femelle bi may ban. waaw bii mooy femelle bu ñuy wax mati mu doon femelle boo xam ne moom itam dëgg-dëgg femelle bu doy waar la parce que gis nga moo fi wàccee booy bii nii beneen seen bi ñuy wax euh, booy ngay kon nga xam ne femelle bi itam moom itam dëgg-dëgg femelle bu femelle bu bu am yaakaar la waaw parce que doom bi mu ngi doog a toll léegi si tout moon kon nga xam ne femelle bi moom dëgg-dëgg macha allah. doom doom bi moom kuy puy papaam. dom bi mom non mom judo, si gete gete gi fi nak mom mu ngi judd ko fele ne senegal da fi ñewale ak dom bi mom ya gis nañ fi yang ngi fi teewat benen female mu don female bu bu you neex. ina nekk female bu weex bi nga xamne ne macha allah moom tamit eh, nduro na ni xale la mom dafa melni musa Gouta am dom sax eh, femelle bi mun nga ñow wax eh, moom mooy kan. moom mooy Kouma Ndiaye doon femelle bo xamne mom tam itam la bi fi ñewé yagul mu ngi doga sax si sandra Park moko waaye mu doon femelle boo xam ne moom itam tubaarkàlla bi muy ñëw am na beneen bu mu benn sën maal ñu wax euh, boobu ñu ngi ko joxe suñu benn oncle fële moom muy foofu noonu waaye ñoom ñaar ñoo àndoon wàcce fi waaye moom dafa doog a tëbu nii ees waaw moom la ñuy wax ko mu njaay mu doon femelle boo xam ne dëgg-dëgg boo xoolee rek da ngay mu doon femelle bu bu yaakaaru wax dëgg yàlla gis nañ ne ñu ngi ñuy taxawaat fii euh, si yeneen xar yi nga xam ne ñetta la euh, bëggoon nañoo xam xar yi ñooy yan. waaye itam yeneen femelle la yoo xam ne yu am solo yi nga xam ne dañoo ëmb ba xala diis ñoom lañ fi ber bii mooy xojo kebbe wanoon nañ la fële ne tëngam boobu boobu noonu amoon na beneen doom taawam bi mu ngi dakaar bu ñuy wax Batar mu doon maal boo xam ne léegi soo ko gisee moom tubaarkàlla léegi moom mu ngi foofu suñu benn bergerie suñu benn oncle foofu lañ ko bàyyeegum am na tam beneen tëngam bu ne file ba raay naaw ni dafa ëmb dafa xaw diis moo tax ñoom ñoo ñëw ber leen fi moom ak yeneen yeneen yi nii. bii tam beneen femelle la bu ñuy wax law la cat. Euh, moom nag yàggut si gétt gi lool waaye mu doon xar boo xam ne dëgg-dëgg soo ko gisee rek bëgg ko doon xar bu doy waar wax dëgg yàlla juyee ko fële mooy itam Dakar wàcceegut fi benn wax dëgg waaye ray naaw dafa ëmb ba xala dis nii moo tax itam ñoom ñu berleen saay nii waaw. gis nañ ni euh, la cat moom euh, xar bi moom baax na wax dëgg na yàlla car macha allah xar bi moom fu mu jigee si dakaar waaw moom ngi jógee ko Tëngéej waaw Tëngéej la jógee ko foofu noonu. Tëngéej la jógee ko. bi mooy fausse ëmb am si bergerie bi. waaw bi moo nekk fausse ëmb am fii si bergerie bi waaw right now dañu xala diis moo tax ñu paak waaye mën a fi benn parce que yàggu fi loolu bi tout monde baag uh, la ñëw fii nii yaa beneen la uh, bii la ñuy wax Médis Baro mu doon tënk uh, femelle boo xam ne moom itam wax dëgg yàlla femelle bu doy waar la right now dafa ëmb ba xala diis nii sax moo tax itam mu bokk ci yi nga xam ne dañ leen bersaay moom boobu moo fi jur bi ma la wanoon sànq petit baro mu nga bi ni ni yaay petit baro dafa ëmbu ni ba 10 motax ñu boole leen fi ni fi ni berlin waye mu doon teug yo xamne deug deug femel yi am yaakar ñu wax deug femel yi ama ama am yaakar Ya. legi dafa melni euh, oh. bi mo nek second umbam wa bi mo nek second umbam fausse umbam bi mo nek na la bu ñu wax petit euh, petit sorry euh, petit baro video ngeen ko sank so bini ni mo nek second second umbam soo moo tax mënoon na la euh, Petit Baro dafa xaw a luus fomm diis yi dafa xawoon a feebar wante next moom soo fi jaarata di nga xam ne xar bi mooy doon xar bu doy waar la. léegi bëggoon nañoo xam moom kan moo ko ëmbal. Euh, moom xar bële moo nekk papam euh, sori xar bële moo ko tëb xar bu ma la wax sànq Central Park waaw moom moom moo ko tëboon fii la tëboon waaw. bëggoon nañoo xam yow lan moo la duggal si wàllum yar. waaw wàllum yar moom xam nga dañoo juddu ñun juddu si ob bi fekk suñu papa yi suñu yaay yëpp ngi yar ñi yar nag fas xar. everything so ñu dem di dem di dem di dem ba yàlla dox ñu dugg fii di xoolaan tele yi di xool Sénégal seen foire yi seen akson yi seen gétt yi affaire bi nekk suñu xool trop loolu moo gën tax daal ñu sóobu si dugg si waaw ñu ngi ko statoon depuis 2018 ba ren ñu ngi si 2020 almost 3 years bu manqué turi daal 2 years 5 months ou 2 years 4 months waaw loolu lañ si amagum wax dëgg waaw leen dafa mel ni kon la c'est three years rek ngeen amagum si si yar bi te gis nañ ne bu ngeen ñëwee si ba ba tey si three years during the three years gis nañ si eh, big improvement si eh, Hadis Farm fii nii léegi Omar eh, yéen seen xar yi fii seen dundi naka la tëri waa seen dundi moom dëgg dëgg xaw na métti nag dëgg wante nag lépp si statin bi la nga statin bi boo dooree jug yaa ngi bugg a am xar bu seer benn yaa ngi bugg am xar bu xar bu baax seconde bi tam ak seen dundin kon il faut mu so loolu moo tax seen statut bi daal daf dee xala métti wante da euh, boo si jàppee moom da nga ne liggéey la noo si nekk sax dafaa gën nekk sax sax xol bi sax xel di ko gën a bëgg moo tax waaw soo di gëm maanaam gëm-gëm la daal waaw gëm-gëm la so loolu moo tax boo si nekkee dem bësal rek ci kanam rek da nga gis li nga xam ne moom nga nekkoon di jëf wante statut bi moom mën na di dawloo ñu bëri te moo dee dawloo ñu bëri waaye loolu ma dëgg dëgg moom yàlla kii lañu ba ñun daal ñu ngi bës bu baax ba mii bi after daal incha allah dinañ gis li nga xam ne moom lañ nekkoon di sonn waaye nag seen dundin moom dëgg dëgg seer na trop waaw seer na trop always tam moom moo gën seer dépasse kër parce ñoom loo li nga dee expense ñoom every day soo xëyee wala su dee is too waaye dara nag sant yàlla bu baax a baax a baax waaw la xam naa ne incha allah ci kanam dinañ gis li nga xam ne moom nga doon def waaw léegi yi ñoom seen traitement naka la naka la tëre waaw seen traitement moom daf am seen un docteur comme que yow yaa nekk seen biir soo xëyee tey nga gis xar bi ni menoon démb menu ko tey benn nanguta lekk wala mu ngi tayal mu ngi beru sayatam benn nga xam ne kii dafa am lu soxla benn dafa stress wala daal am na lu muy yëg si yaramam docteur bi ngay kool mu ñëw cak ko na la kii dafa am lu ko manqué nangam la nangam mu traité ko dasit ok dafa mel ni kon femme moom dafa am spécial vétérinaire bi nga xam ne moom moo moo moo amee femme bi moo ko dee tekki yaa ok ndax léegi kon kooku noonu su ñëwutee yéen da ngeen di am any difficulties wala da ngeen am euh, kon daf leen dee teach euh, how how to cure the sheep or livestock anyway ndax da ngeen dee ndax da am basic boobu noonu non loolu comme moom moom su ñëwutee ñi nga di am ñëpp daf am koo xam ne spécial daf laa mën a boole ak ko xam ne moom suñu mëntu ñëw rek mm. daf laa koolal kooku mu ñëw moom mu cagal la loolu moom dëgg-dëgg du dee nekk problème comme ça nit ñi rek boo feebar hospital boo demee amuloo foofu da ngaa jàll si beneen mhm. soo ñii itam noonu la rek koo kool ki nga xas ba miitante ak moom mhm. kooku bu amee ngant mënut ñëw keneen mhm. wala moom mu koolal kooku kooku ñëw mu cagal la wante du dee doon pa because demee ba gën ko sax yow yaa bopp lépp xam lu ñuy wax pigir dafa laaj time pour nga jël time tuuti waaye vitamine nag lépp loo xam ne ñoo leen ko jox without pigir ñun ñoo ko ñun ñoo ko de defal suñu boppa tëj rek lañ jë oogaay pour ñu ñëw ca ko to da ngaa pousse am na nooy poussé si nekk ñoo xam ne ñoo di pigre seen boppa ñoo di defal seen bopp everything waaye xam nga affaire pigre moo so loolu moom soo nekk il faut que laaj pour nga jël time nanka nank ba kanam waaye am na nooy poussé ba si kanam moom dootoo oori benn benn docteur so lépp yaa ko defal sa boppa léegi bëggoon bëggoon nañoo xam ndax yow kenn yow yaa nekk si femme bi di tekk yaaro eh, xar yi wala yow dafa ne yaa nekkul ne man sax raay naa ma fi nekk di liggéey man dama nekk si kër gi yore leen ak suma brodo bay kële nga seen suma suma suma suma brodo la man moom ñoo nekk si kër gi boobu itam sunu raka la bas kële moo nekk Ibrahima sunu brodo boobu itam bas sunu rakka kële moom la ñuy wax ngay moom moo nekk si xarit fii nii moom la ñu spécial di ko fay par moon xam nga xarit moom liggéey la. because yaa ngi jël nit koo xam ne yaa ngi ko fay moom mu siy gën a salari loolu tam dëgg dëgg sant yàlla bu baax a baax a baax yaa moom lañ jël moom moo nekk si xari everyday moom moo fi nekk amul fenn fu muy dem fenn mooy leen lekka ndox nekk seen biir luñ soxla mu xam yow boo xëyee da ngaa ñëw xool xari soo gisee loo xam ne ni gisuloo nga dem nga ne ko waaw booy naxal li nangam wala moom mu gisee loo xam ne gisu ko mu xoolal na la waa waa njaata gi nangam nangam ngeen ñëw xool nu ngeen ko euh, defaree solution boobu noonu. ndax ndax yi ndax yéen ñi da ngay gis seen bopp tamit ci xar yi tamit. bu baax a baax a baax dëgg dëgg ñu ngi see gis suñu bu baax dëgg dëgg waaw dëgg dëgg xar yi moom ñu ngi see gis suñu bu baax a baax soo gisee ñu see gën di sawar di ci gën di jëf suñu kem kàttan liñ ci gis la moo tax kenn du nekk si dara gis soo dara di ci rey sa bopp non mhm. soo gisee ñu ngi siy gën a sawar di ci gën di góorgóorlu mhm. liñ si gis moo tax njëriñ bi la ok dafa ndax yéen yéen a ngi amee association wala yéen ngi join si association bi nga xam ne kon yéen ngi liggéey yéen i neen seen biir waaw ñu ngi join si association yoo xam ne nii ñu ngi def suñ ñu ngi form suñ groupe mhm. lépp loo xam ne xàpp na si élevage bi dañ ko wàccee foofu ñun ñëpp ñu gis waaw bépp foo xam ne xar yu ñu fa dañ ko wàccee ñun ñëpp ñu gis mun faa dem ut so ñu ñëpp benn lañ dëgg dëgg euh, gars yi ñoom dëgg dëgg jàmbaar lañ ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp waa sàmm sa jur yeneen groupe yi si gars yi si biir yëpp soo di leen ñaanal jàmm bu baax a baax tey di leen wax ne ñu jàpp bañ a bàyyi tey ñu bàyyi wante xel dimbale wante tey bëggante rek te yàlla tax te ànd si dëgg loolu moom maa ngi leen koy bàyyiloo xel ñoom ñëpp te di leen nuyu bu baax a baax a baax waa groupe bi yëpp nag wax dëgg yàlla yaa ay jàmbaar lañ ay jàmbaar fi ne dëgg dëgg Gambia right now éleveurs yi tey gis naa ci loo xam ne lu am important la because dañoo ànd nekk benn waaw dañu ànd nekk benn bëggante nañ su ñëwee sa gétta dëgga dëgga lu ñu fi gis rek dañu ne ah sawaay trail li def ko nii def ko nii mu def ko nii def ko nii soo loolu itam mooy dëgga bu ñu àndee ñun ñaar ñu nekka yow yaa ma ëpp expérience si living bi because lu tax yaa ma si jiitu soo ñëwee suma gétta gis fi loo xam ne nii jaaduwul dafa affect suma gétt dafa koo delloo ginnaaw da mu naan bro wala nga ne ma rakka nangam nangam de ciñ ko baaxul si sa gétt daf koo delloo ginnaaw understand nga ma ni su ma demee si geneen gétt gis fa loolu because man maa ko si jiito ëpp ko si expérience su ma gisee si moom géttam loo xam ne jaadu daf koo delloo ginnaaw ma itam ma waxal ko ko so loolu moom dëgg-dëgg gis naa si gars yi ñu ngi si travail bu baax suñ koto si biir ñu neen gars yi yëpp joro sal lim mais ñu baax lañ dëgg-dëgg loolu moom côté boobu moom gars yi ci loolu wax dëgg yàlla waaw gis nañ ne tamit seen association Gambia seen association yu bëri fu mu nii gars si gars yaa sax pour start si benn benn ba di pour invite tamit ñi nga xam ne ay foreign countries leen lu mel ni Sénégal Mali son su defee euh, gars def it benn trade bu mag si Gambia gars si doon liggéey euh, a ngi a bi a because of gis nañ ne coronavirus bi moo tax ba loolu yëpp mu mu jëwut waaye still naa mu si liggéey yéen a ngi ci préparation bi tamit. loolu dëgg dëgg ñu ngi koy bàyyi euh, loolu yëpp ñu ngi si koom comme que dafa stopagum ñu ku nekk yaa ngi làqatugum sa saay di liggéey ba xaar loolu ñëw foron yi nga xam ne dañuy ñëw fii pour ñu def foire dëgg dëgg loolu gars yi dañ si bëgg sax ñi nga xam ne dañoo nekk outside toujours dañu lay wax ne dañoo yàkkamti time bi jot ñu ñëw Gambie def fi def fi lifin boobu soo loolu ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax waaw ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax xam nañ ko bu baax incha allahu rabbi ñu ngi si waaw ñu si liggéey bu baax mm-hmm. yaa la sant di la gërëm léegi mun nañoo xam lan mooy sa kàddu yu mujj la ngay dénk sa morom yi yuut si ak la ngay dénk sa morom euh, éleveurs yi. waaw euh, di kontaan bu baax dëgg dëgg waa Badru TV yéen a si liggéey bu am solo lii moom dëgg dëgg dañ ko xaloonu manqué waaye comme que yàlla dogoon na lii ñu ngi koy am ñun éleveurs yi dinañ mën a gën a bàyyiwaat suñu xel te bu ñu doon def benn danañ ko yokk mu nekk ten because lii lu am solo because lii daf laa yóbbu fu sori. understand nga loolu mo deug deug ñu ci si bég bu baax di leen contane yéen nit di leen ñaanal jamm so di denk suma mbokk éleveurs yëpp ñu gina bayyi wa seen xel te gina because doole emul buma nekké ci si ma gis ne ki dem mu ngi ci ngëm-ngëmam egg na si bëgg-bëggam egg dolem eggul ci so ñun seet naka la ñu négocier ba jàppalante ak moom ñun ñëpp ñu mën ci gis suñu bop loolu mo maa koy denk suñu mbokk waaw soo di leen jaajëfal ñoom ñëpp ay ndaanaan lañ leen ay ponk lañ si biir ñoo xam ne dëgg dëgg ñuy jàppale wante soo damay wax rek ngir ñu ginnaaw bàyyi wante xel mm. understand nga loolu moom lu am solo su bu ko defee ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu waa Badru TV yëpp di rafetlu seen programme baax a baax a baax dama dee siraan seen émission yu ngeen day def si gars yi ak seen yeneen action yu ngeen day jàllale yëpp dëgg dëgg ñu ngi si kontaan bu baax di leen wa rahmatullah wa ñu ngi nii taxaw ak Ibrahima mi nga xam ne moom mooy nekk euh, mag euh, yi boy si nga xam ne ñoom ñoo amee femme bi kay Kaye euh, su ko defee ngi jox ko kàddu yi moom tam mu nuyoo mu sànni si tuuti si wàllum éleveur bisimilah Ibrahima. waaw sëñ bi maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm ma teg si di sant Badru TV bu baax a baax a baax a baax a baax a baax saka dafa am lu mu manqué woon ngay ñëw di si dox te yàlla yal yàlla yokk tànk yi ko mën a doxee. mu ànd ak fan ak wér waaw gis nañ ne euh, yow fii nga ne que te dafa mel ni Ibrahima dafa mel ni da nga di yëngatu tamit si wàllum yar yow wi tamit euh, Ibrahima naka nga gisee wàllum éleveur Gambie. éleveur Gambie moom sant yàlla bu baax a baax a baax parce que bu njëkk euh, gars yi dañ mel ne lu ko ragal wax nekk sant yàlla bu baax parce ragal naa bu amoon champion gars yi du ñu may dugg. waaye ragal naa champion parce que euh, li gars yi wax ne dafa baax comme ça si yar bi tamit éleveur bi di wisit wisit bi si am solo. soo déggee laadum tamit euh, éleveur dafa war a wisit dafa war dafa baax parce que man lu ma gën a bëgguloo laadum ak lu ma gën a tax may gën a euh, fitteeku di liggéey wisit bi may wisit la parce que bëgguma kenn ku ñu raw bëgguma kenn ku ñu raw ku te macha allah du ma wax ne raw nañ ma. du ma ne raw naa waaw du ma ne raw nen ma tamit parce que dëgg yàlla comme ça champion yu fi Omar wane yëpp macha allah te maa leen di gërëm nag ñoom maa ngi gërëm Omar di gërëm Ngay di gërëm Basiru parce que dëgg yàlla maay seen mag fii si Belgique bi. kontaan naa si ñoom trop yéen ñaan yàlla ñoom yàlla yokk seen fan yokk seen wér ñu gën a bokk taxaw fop ñu ngi gërëm suñu oncle tamit parce que moom tamit gannaaw tey lii yëpp moom la. parce que bu ñu daloon si kër gi dañu bunt xatal luñ fi tok ba li dañu fekk xar yi boo gisee ñëpp tey si fi teeku si ci dañ si gis suñu bop moo tax buñ gis gisoon suñu bop dañ ko baay parce que nek ni moy lolu jot amatu waye num mu ñu bootee tamit dafa rafa trop man mom ma ko koy sant ko gërëm fi kër gi fi man ma fi nek goor ci mak taw wax dëgg yàlla ñëpp góor ak jigen ñepp ma jox ciir suma yimpañi ñepp ñoma jox ciir teg si Omar mii ëllëg li ma mën def wala sama niyaay ma ne ko ah, man de Omar gën a def nangam nangam sant Omar nangam def nangam nangam. xam nga da nga gis ay mag nekk si bunt kër gi nga sant kii dara kii naa ah, lu tënk may defal lii nekk magam waaw sant yàlla dama sant yàlla bu ma dàqee dara dama moo ma dàq dara ma koy jiital parce que lu mu def ni tey moo ma ko dàq ma jiital ko te yàlla euh, di sant yàlla bu baax daal su ma nekk ni sama xol dafa sedd ba mënuma Kun nadal, waaw ah, yéen ya, nag di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax surtout Mass suma sëriñ Saloum suma sëriñ maa ngi jégalu maa xam Mass bah, daa nekk suma soppe waaye maa ngi maa ngi koy gërëm bu baax a baax yéen tamit maa ngi bu baax parce que euh, yaakaar naa boo gisee bi dafa neex te na neex fan yokk seen wér télé bi nag xam fi ngeen bëgg mu dem na fa euh, egg mu ànd ak jàmm kontaan trop. kontaan na trop. ñu ngi laa jaajëfal yow mi nga xam ne yaay Ibrahima di di suñ mag di suñ xarit mi nga yow mi nga xam ne yaa yow yaay taaw bi si kër gi taaw bi nga xam ne yow yaa xaal yoon bi ba xale yi saraka yi ñeme lu gaay di def nii ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yow tamit yàlla yàggal sa taxawaay may la wér ak wér la si daraje Seydina Muhammad ba fi nga bugg a àgg tamit si ëllëg yàlla àggale la fa kontaan nañ corob jërëjëf Lagi su ko anda, ngi ànd suñu oncle Souleymane mi nga xamné mo nek leader of Hadis Farm eh, su ko defé mom nga xamné ne fi mom dinañ waxtana mom through uh, Skype call den su ko defee mu expliqué lañu more about lan moy passionam ak lan tax mu dugg si xar ak ban gis-gis la si am ak fal la buga a élevori Gambia assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ma ngi nuyu Badru TV bu baax di leen sant di leen gërëm ci tànk yu ngeen seqi waaxu ba talinding ci berceri kër yàqat yi ñu naa sant bu baax ci tànk yooyu noonu di leen gërëm waaw ma ñëw ci laajte yi Sakria mel ni ma laaj na ma ban at la commencé sàmm waaw macha allah sàmm nag dama si juddu côté yaay ak côté papa yop wax dëgg yàlla sama yaay côté am yëpp ay yarkati jut lañ sama papa kasaalika naka noonu waaw kon dama judd si sàmm waaw mais ma ñëw ak yow ci wàlli laadu mi rek pour vidéo bi bañ gudd sonal ñu koy seetaan man maa ngi commencé dugg ci laadu mi 2000 non sax la 2008 2008 la dugg ci laadu mi dama amone benn place Dakar say mo xeyere xëyee rek lu si gën a bëri su ma biisiwul loolu damay toog place bi gars di may romb ak laadu mi rek suma ma leen gisee rek kontaan laadum bu romb dana taxaw sama buntu place ma ray ko bala jall te suma kër goro tamit dafa am ay laadu mi nekk ci kaw saa yu ma fi joxee ma nuyoo pare rek maa ngi ci kaw si laadu mi si la ma laadum dugg nag am benn waay boo xamante ni da am luñ jëflante woon ba am luñ jëflante mu war maa jox xaalis léegi ala fay papa ji feebar man ma njaay maanaam war naa la fay mais amul wala fay mais am naa xar soo bëggee nga ñëw ñu dem yoof nga tànn si xar yi bu la neex ñu jëflante si ma ne ko ah, baax na mu won ma photo xar bi ba mu wonee photo xar bi ma ne ko waa danaa ñëw kër ga xool ci ko ma dem fekk mu yor ñetti xar ñaari xar yu jigéen ak benn bu góor mu wax ma benn bu nekk ban sang la bokk benn bi sax maa ngi ko amee kër gi ba léegi mooy Jama Njaay mu ngi foofu si kër gi ba ma ko wanee ma ne ko waa xar bi baax na mu wax ma sang bi ne ma ñaari doom yi booy séeréer lañ boole mu jur ko ma ne ko alhamdulilah si lañ dugalante noonu xar boobu laa njëkk am ci laadum mu ngi foofu si kër gi. Sakria waaw ma ñëwaat ak yow si sa beneen laajte bi sa beneen question bi waaw xar yi de ñuma ma jox xar sénégal nag bari na wax deug yalla ba ma jógee si xar boobu wax jama ah, ci la ko jël ah, jëlee yof yobu ko parcel suma kër sista bi bay ko fofu moko baye fofu bobu mom ken rek la yor ci xar ma ñew tok ay fan dem seeti serigne maoudou si dem alay Abdou si da ah, Dakar kërëm ba ma demee seeti ko almari munu ma eh, sëñ Babacar na ma doom ji ah njaay nañ àgg si eh, si gannaaw mu woon la xar yi ñi dem mu woon ma xar yoo xam ne man mosuma gis façon xar yooyu wax dëgg yàlla léegi ma xool xar yi xool xool xool xool xool ba pare ma ne ko sëñ Babacar kan moo moom xar yi mu ne ma xar yi su ma rakk bu ñuy wax Cheikh Tidiane moo ko moom ma ne ko ah ma ne ah, xar yi bëgg naa si mu ne waaw kon léegi cheikh dafa génn mais danaa la ko laajteel bu ñëwee ba xam dafa am yu muy génneem de ba cheikh ñëwee mu laajte ko mu ne ko waaw am naa fi benn sëtu magistrat bu may génnee ak benn sëtu basir mu ñaari femelle ci la wax ak cheikh mu wax ma price ñu waxante ban jàppale ma ma am si ñaari xar xam nga kon léegi am naa ñetti female dèjà léegi nag ma ñëw soxna si waa léegi fan laa jëlee maal nag mun ma xanaa xamoon yow sa jarbaat day yar xar mu ne ko suma jarbaat ba munoo moo dramé munoo moo dramé fii daanaka parcelle gi ko fi gën a xar bëriwul ah, danaa dem këram tey ma kër moo dramé wax ak moo dramé munu ma man daal euh, sama nijaay waaw temps yi benn mbott rek laa fi am bu may génnee mais amagu sa 3 mois xaa da nga ko mana bàyyi ba ci kanam mu ne ko amul benn problème mooy xar bu weex boobu central park si gàttal si la ma ko moo dramé jox ma bàyyi ko fa fan yooyu nag si laa ñëwaat fii nii bàyyi fa xar yi moo ko bàyyee xar yi moo ñëwee si laa yónnee ñoo mbay mu dem commencé nak am relation ak cham ak cham yi di xamanté bok ci groupe bi di xamanté gaay yi ndank ndank xamanté gaay yi ndank ndank Ahmed Ahmed kan jox ma xar ñi ma jox xar bari na de Mor sen jox ma xar diaspora bi sa ñi ma fi jox xar bari na suma xar yi nek diaspora bi ñu bari jox ma xar non la relation bo def ba am ak euh Eh, relationship bu nice ba xamanteni tabarakallah luma gis sen loxo su ma man mako soxlo soxlawut mais su ko soxla dama ko jot legui legui ni waaw do commencé ci abukan ba ci souf ko ci nek lu nek sa loxo lerr na ma su ko soxla dana ko jot waaw lolu la la ak ñom Sakria a ah, ma ñewati ah ndaw yi Gambie de man ma ngi na misin rek luma denk sama ne man mi ci ndaw ñi la bok nañu gor gorlu ta ne yalla ku ko nekkal mu nekkal la man kana lillahi kana lahu lo yalla ku ko nekkal rek mu nekkal la ku gor rek da nga la dimbalé waaw si kaw gorlu bo na ma ngi gëreum wa Gambia yëpp yëpp yëpp kep ko xamne ne nga ngi sàmm Gambia rek amel na la né ne kati xëddeem dañu war di yego ñun ñu bokku lu ñu yëngatu ñun ñëpp wax deug yalla kii yar ginaar kii yar pitax kii yar bëy ak njaay mii yar laadum yéen ñëpp yéen bokk benn façon boo xamante ni si ngeen nekk kon nag maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di santu ñëpp di tàllal suma loxo ñëpp wax dëgg yàlla da ubbil sumay buntu ñëpp xam ne Berserkariya Khady moom njaay moo nekk si bopp bi mais nekkoon ne yëfi njaay rek la ñoo koy doxal sax du njaay ñoo koy doxal ñu ngi ci suuf ñoom ngay Ibrahima Diba Omar Dramé ñom ñoo amé yëf ñoy doxal mais man danaka dama contrôlé mais doxaluma dara ne càmm gi mom kenn nit mënu ko doxal da nga japp fi sa morom japp feulé kan dal lool la am lu may ndaw ñi ko xamante yow ñëgi ben mbote nga am jëndal mboté wa jëndé mbote bi yobbu ko si sam yi bari nañ gambi ñu teblul ñaan tepp buñ la mayé bu juré ben yoon ñaar yoon bu yagge am nga départ nga bañ a yàkkamti mais xar yi tamit dafa xaw a seer ne xar bu baax moom du yomb soo bëgg a yàkkamti rek euh, amaana da nga gaañu te la nga bëgg doo ko am kon ñu def ndànk-ndànk rek bañ a yàkkamti te ñu nga xam ne ñu leen jiitu càmb gi ñu déggal leen rek di déggoog ñoom ndànk-ndànk di waxtaan rek xam ne àdduna moom dara xëyit sotti lépp waxtaan la si tekk ak ba nga la nga bëgg yàlla dimbali la amee ko noonu kontaan nañ ci ñëpp maa ngi gërëmaat waa Badru TV bu baax di leen santaat bu baax a baax. mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a saxoo di seetaan Badru TV te gis ngeen li leen lañ amaloon fii si Talinding ngi ñëwoon seeti suñu xarit suñu oncle muy Souleymane Ndiaye mi nga xam ne moom moom moom Hadis Farm fii nii si Talinding euh, di leen sant di leen gërëm te di leen wax ne always da leen a subscribe suñu YouTube channel bi den su ko defee ngeen yokk ñu doole because of euh, seen buga buga moo ñu tax a jog because of fu éleveur nekk Badru TV fas yéene naa dem si yow ngir won ko àdduna si yëpp di leen santaat di leen gërëm ba beneen yoon ak keneen ku ñu war a àndal si éleveur jërë